Samsung euh, Zakaria Gueye teewal leen fi tey euh, Zakaria euh, ñi ngi woon ci promotion Samsung bi jëm ci phase bi nga xam ne nag mooy mandargal vingt 27 mai diggante Ama Baldé ak Guy gi Njaay mi ah Guy gee parte <laughs> supporteru Guy gi ah ñoo gënoon jënd defe naa diggante bi sax am na ñu ma soufflé na waa Pikine li leen Guy gi nawee bareetul waaw mun nañu wax ne bareetul. waaw ndaxte euh, ku ci nekk. Mhm. yaa ngi def le maximum. Mhm. ba au delà de yow liñ ciy am. Mhm. yaa ngi ciy jéem a jàppale waale sa mbër. sa mbër waaw ndax promotion bi ba léegi je crois que ne Sénégal léegi ñëpp xam nañu nan lay demee. muy combat mi nga xam ne moo war a déroulé wu ci diggante guy yi ak Ama Balde bu le 27 mai bi. ñëpp seetaan nañu seen face à bi amoon Stade Iba Mar Diop. ci diggante Fëgal ak Garga gis nañ ambiance avant combat donc mun nañ wax ne jouru combat bi du ambiance mooy manqué. waaw promotion bi nag ba léegi mi ngi wëy comme niñ koy doon waxee bii passé supporters yi la ñuy gën a sas ñu dem jëndi produit Samsung yi parce que démb def nañu benn tirage au sort. Mhm. donc pour te dire que ne du Samsung dafay wax loo xam ne nii du ko def. Mhm. war nañu war a mën a laaj supporter booy Niang yi. ñi nga xam ne moom moo jàkkoonte woon ak euh, les 2 les 2 ni ñuy joué ba léegi changé wul mm-hmm. ba pare teg ci yomb na mm-hmm. da ngay jënd sa téléphone Samsung boo jëndee téléphone Samsung na la wóor ne am na effigie bi ñu ci def guy gi ak bi Baldé wa ilaa bu amul na ci Boy Niang wala les de nekk waaw loolu mooy wane ne mooy produits yi nga xam ne moom lañu désigné pour ñu bokk ci jeu concours bi mm-hmm. pour bokk ci yomb na ci ñett la am na ku faral guy gi am na ku faral Ama Balde am na koo xam ne ni faralu leen ñoom ñaar waaye dafa bëgg produit Samsung mhm. kooku tamit walla mi ngi ci ki faral guy gi ni muy joué bu jëndee téléphone am dafay relever code email bi mhm. bu relever code email bi mhm. da koy yónnee day jël numéro email bi mu yokk ci turu mbërëm comme que guy gi la faral day def numéro email bi yokk ci guy gi même bu fekkee téléphone bi nga xam ne daf ko jënd less deux ak Boy Niang ñoo ci nekk moom bu fekkee guy gi la faral mun na ci yokk guy gi. Mhm. même bu jëndee bu am. les ak Boy ñaar ndaxte dañuy jot ay information yoo xam ne ñu bari dañu yaakaar ni jeu concours guy gi euh, les deux la ak Boy Niang mhm. boobu paase na. Mhm. bi nekk suñu kanam ni mooy guy gi Ama Balde. bu fekkee da nga jënd téléphone boo xam ne dafa am. Boy Niang ak les ba pare nga bëgg a bokk ci promotion bii nii. da ngay jël sa numéro email boobu. Mhm. nga yokk ci sa turu mbër. Mhm. yaa xam ndax guy gi la wala Ama Balde nga yónnee ko ci 24 1 2 3. 3 boo ko yónnee foofu dinañ jël en compte sa participation. Mhm. ñi nga xam ne nag faraluñu guy gi wala faraluñu Ama Balde ñooñ tamit ci ci jeu lañ bokk. ndax Samsung ñëpp la fi nekkal mun ngay nekk fan su produit Samsung rek te làmb yitteelu la trop. te bu la neexee mun nga bokk ci jeu bi ni ngay def mooy boo jëlee sa code email da nga ciy yokk Samsung. Mhm. Samsung bi nga ciy yokk nga yónnee ko ci même adresse bi 24 1 2 3. 3 looyi nag kenn du ko naatable. Mhm. ndax ki nga xam ne moo faral guy gi wala mu faral Ama Balde seeni supporters ñoo ci njëkk a bénéficié wu. Mhm. ni ciy gagné mooy mun nañ ci am ay ticket entre stade bi. jox leen ay t-shirt jox leen ay kaar yoo xam ne ñoo leen di yóbbu ba jox leen enveloppe xaalis yoo xam ne dinañ ci mën a au moins préparer wu balaa ñooy dem supporter ji seen bër donc ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp ah. ki nga xam ne dafa mbër mi nga xam ne ay supporters am ñoo ëpp li ñu mm-hmm. muy guy gi wala muy Ama Baldé dañ koy préciser chaque fois ci combat ba combat bi mais combat bii ñëw ku ko mënti tëgg mm. Samsung def ci ànd ak moom moom mu xool fan la bëgg a dem préparer wu physiquement. ci Europe ci Europe. walla ci Amérique. Mm-hmm. fu mu tànn rek Samsung gunge ko fa. waaw mu dem préparer wu physiquement. te lépp lépp ko yor mu ñoo ko yor. donc pour te dire que ne amateur ak supporter mm-hmm. au delà de ñoom li ñu ciy am. Mm-hmm. mun nañ ci tamit jàppalewaale seen mbër. seen mbër ki nga xam ne nag moom du guy gi du Ama Baldé. mooy ki nga xam ne dafa def étoile jazz. 06 dièse am code email am yónnee ko ci Samsung 24 123 mhm. kooku mun na ci gagné ay paquet produit Samsung Samsung te kenn du werante produit qualité Samsung kenn du ko werante déedéet donc ñoo ñëpp ku ci nekk diñ ci mën a gis sa bopp gis sa bopp waaw donc euh, li ñuy wax la rek amul ma amul pertement euh, Zakaria Ngogu euh, représenté Samsung sunu sponsor Euh, kon euh, mbokk yi dañuy dem ba Iba Mar ndax euh, xam nga talaata bee ñu génn ci la Kanj production doon amal Ouza ak Ahmed Dem dañuy dem ba Iba Mar seetaani grand combat boobu dellu soit ci plateau bi laa ilaaha illa astafurlaa astafurlaa daa sew rek waaye dara jotu ko ndeysaan ndeysaan arbi baa ngi laaj ndax Ousa pare na arbi baa ngi laaj ndax Ameth Deme Tóor pare na coup de sifflet dal na Ousa ak Ameth Deme ñoom ñaar ñi nga leewaatoo Ousa nga koy déplacé lay la la Ameth Deme ba fees Ouza takkul dara cela veut dire que Ouza dafa bëgg a jàpp laay laay la laay def nii Ouza bëri yi yal na ma yàlla baal amatul de baax na baax na màggatub koj koro mooy jàkkaarloo xale bu waane ma ne màggatub koj koro rek mooy jàkkaarloo xale bu maane ndeysaan ndeysaan télévision Futurs Médias mooy jinne télé yi ma ne télé yu yi télé yu jigéen yi télé yu mag yi télé yi Adja Thiam maa ngi laa nuyu la traité ah ko eh Ousa door dem Ousa door dem Ousa door na ko laay laay la la laay laay la bi may ko Adja ndeysaan sama xaritu coiffeuse bi ndeysaan am de nedut sama xarit di laay laay la la Ousa ak Ahmed laay laay la la Ousa na Amet dem dem ma ne Ousa dóor na Amet dem dem da <laughs> du déggoo de ma ne Ousa dóor na Amet dem dem waaye looloo neex ah, ah dem ci kawam laay laay la la dem ndax lan dem ndax dem ndax fan ndeysaan dem dem songo nañu Ousa nag daa mun combat yàgg maa leen ko ma ne Ouza daa mun combat bu yàgg maa leen ko wax Ahmed Deme Ouza Ahmed Deme Ouza laay laay la la laay laay la la daan daan nañ Ouza sama ndey daan nañ Ouza Ahmed Deme daan na Ouza woy yaay daan nañu rakku magu Papa Sow ja yaay daan na ko Ahmed Deme dem na ca kawam daan ko ma ne dem na ca kawam daan ko woy yaay daan nañ sama xarit ba woy yaay daan nañ sama xarit ba ay waay ndam bu daa waay ndeysaan daan nañ sama xarit ba di courage bëre nga ba dee ma ne maa la wax ba bëre nga ba dee di courage Ousa ndeysaan ay waay daan nañ sama xarit ba waay voilà